di leen xamal ne man mii kat toog fii sama buntu kër. 72 ba léegi ndox mi lii fi ne nii moo fi ma sànni te kanam lu jëm nag ndax at yi ñëw ndox mi day gën a bari. koñ bi ci gis-gis ñaaw na vraiment ci dégg biñ ci am ñaaw na tamit. ñu ne pourquoi pas du ñu jóg jéem ko saafara lool. place yu tëj jafe-jafe dëkkuwaay li ko waral mooy ñàkk am canalisation yu mucc ayib ba tax muy indi njàqare saa su rawatina bu nawet jotee ci ñi nga xam ni ñoo dëkk fii si koñ jàkk bokk ci Castor ci département bu Rufisque. gis ngeen koñ quartier bi ni mu mel xam nga ni lii rafetul suñu doom yi dañuy jaar fii suñuy sët di fi jaar ñun ñu di fi jaar. amuñu luñul koñ bi da koñ baa ngi ñaaw xamuñu nu ñuy def école ubbi Ben avant que 74 ba légui ñi ngi kasso parce que bar mal de boy yo xamne fi leen juddo ba tay yor nañ ay soxna koñ bi ni la massa mel waaw koñ boo xam ne vraiment ndoxu arafat bi fi lay jaar bu commencé daw fi pour nga mën a ñew ci jakk ji wala pour nga mën a jox sa soxla problème la. ci accès la bo xam bu am solo ci quartier bi yoon la bu jëm ci jakk ji yoon la bu jëm ci école amono fi ak yeneen ni jumtuwaay marché bi et tout donc fi manam lieu de passage important la donc euh, mais neexul neexul a pratique parce que toy na bëgn na xeer bëgn na ñax.

cotisation boobu ñuy def amul limite waaye lu ci waay man mu ngi def suñ kemtalaay kàntan ku ñu si dimbali rek fekki sañ ndax dox ndimbal na ca fekk loxol borom te ñun toujours ñu ngi ci ay ati at te amaguñu benn solution di laaj nag dimbal ndax mu jag di gërëm xale yi koñ beeg activité bi ñu siy defak ak di ñaan yàlla daal yàlla may leen wér ba suñu soxla mën a faju jot nañ def porte à kër yi ñu jot a yëpp te des na dinañ ko yeggal incha allah tey jii ñëpp euh, kontaan nañ ci ci te rafetlu ko pare aussi pour jàppale ñu muy ay moyen muy ay conseils te mu doon loo xam ne dëgg yàlla c'est encourageant ba tax nañu sawar xas suñu tàkk tubay que ne désormais c'est possible mën na nekk ak ay ndaw yoo xamante ne pare nañ pour def ci seen doole même bu dul seen alal mais pare nañ pour jàpp ci pour mu saafara waa waa koñ jàkk ba bopp ba bopp koñ marché bi ba si booru terre bi ñëpp dinañ xam ne projet bi pour ñu liggéey suñu vraiment nu mu mel ni ku ñëw dina xas ku ñëw boo ne taxi tax dugal biir kasoon euh, mu ne leen baa du koñ bu salte bi loolu dafa ñaaw si gis-gis te loolu bëgg nañ vraiment loolu dañ waaw vraiment nañ ay very yi weer di si waxtaan ba tey am nañ trouvé nañ groupe gars yi ñu ngi si kawam di si liggéey ñu ngi siy liggéey waxtaan nañoo suñu suñu suñu maire yi fi nekk ak suñu suñu parents yi vraiment ñu ngi appuyer si affaire boobu. waaw dem nañ ba gis chef de quartier waxtaan nañ si aussi moom tamit mu ngi appuyer si côté boobu li si des dinañ si gën a liggéey pour gars yi gën a mën a xam projet bi la moo tax mu jóg. waaw parce que dañu war a changer suñu canalisation ndox mi pour ndox moo xam ne pour bu tawatee mu bañ ñu sonal suñu biir kër yi suñ si jógee ñu mën a defar suñu koñ bi ba mu baax boo xam ne. képp ku fi romb dina xam na kat ñi góor ñi jóg nañ ànd ak suñuy sœur ak suñuy yaay suñu ñoo topp suñu ginnaaw. képp ku mën a dimbali suñu koñ bi ñu war nañoo see dimbali koñ jàkk la fii la ñuy jullee fii la am fii la ñu dëkk depuis ñu fi ñu duggee ba léegi nii la ñu fekkee koñ bi ren nag daf si euh, raw ndox maa ngi nii di dem guddeeg bëccëg toujours gu jot amul arrêt toujours day sotti rek gis ngeen que nii ñun nag si dimbali rek la ut. nañ ñu dimbali te yàlla rek a tax ñu dimbali ñu suñu koñ bi ni mu mel moom ñaaw na torop torop torop torop ñu ngi baalu àq di jéggalu si wax ji